muy di neexal dund gi di seddoo la ñu am di ku ñu am ñoo ne sunu mag sunu xarit le grand leader le champion social Ousmane Kane Dalal Jamm bu ko ñaaram waxee le président Macky Sall moo ko wax à son nom maa ngi lay wax Ousmane dalal jàmm ca alliance pour la république. dama la wax sax dalal jàmm ci Njaaréem ndax yow yaa may tertu yow yaa fi borom cër sama nijaay ma ko seede yi mu def ci yow doy na seede wax na sa njëriñ ci njaareem ak waa njaareem wax na sa njëriñ ci meeri njaareem wax na sa la bu mag ndax nag ñaareel li maamu laay bu ñu demee ba amoon lu tuuti lu ñuy jaaxal yow ci nga bokkoon kon boo jëlee sa décision bopp ci li nga ko waxee te man noonu laa ko suivre kenn ñëwul démarché la kenn ñëwul neexal la kenn digul dara ñu yaa toog analyser situation bi xool sa diggante béy di sëy xool sa diggante yaram yi maam laay xool intérêt yaram yi maam laay nga jël la décision historique de rejoindre le camp du président Macky Sall maa ngi lay sant di la gërëm yow ak ñi nga àndal yëpp di ci jiital nag soxna yi muy soxna Thiam di soxna Ndeye Assou di soxna Seynabou ñu leen di nuyu di leen sargal di leen félicité ah di leen wax nag ñun am nañ fit gannaaw ba ñu ñëwee fekk ngeen jiital Ousmane jàppale ko ah yaakaar naa ne a partir de maintenant am nañ un grand champion à notre sac. Njaareem nag am na lu des waaye. li des mooy xanaa ma def li des mooy dama bëgg ñu jëlal ma nag sa waa ji rek muy Zala. defoon naa ko fii appel daaw ñëwagul woon ndax xam naa ko borom kersa la waaye nag woon na ma ne su ma ko jaaralee ci doyen Ousmane Kane. su ma nee Zara dikkal dana dikk. la ko. asalaamaaleykum wa suma nit yi wax ne moom moo ma moo gudd benn am lu olof di waxee moom mooy Ablaye Sall su ma waxee fii ma ko hommage defuma lu ma war Ablaye Sall su ma mënee ak ay nit ñu wax c'est grâce à Ablaye Sall su ma mënee jël sama ne damay def discours def bind ay charabia moom moo may def comme un élève en classe corrigé ma defal ma ko mu baax mu mënee wax ñu ne gongo su ma fitu di diriger association jamono 2 pendant 11 ans balaa loolu ma nekk 15 ans président commission sportive ASC Jamono 2 ba tey bi xale yi di football maa ngi stade à 8 heures moom moo ma inculqué loolu moo ma inculqué foi boobu nga xam ne sama njaboot dama ko bëgg damay ànd ak moom. bu amul dara ñàkkul dara sax mais bu amee lan lu mu jooy njaboot moo tax amu ko.